asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu chahru ramadan di weeru barkeel weeru bari ngëneel ñu koy dundal bu baax a baax ci dëkk bu sell bi di Touba daayira mu xàddamatul xidma bi nga xam ne mooy saytu jumaay Tuubaa ju mag ji fas yéene ànd ak yéen ci programme bu am solo ginnaaw bu Cheikh Mahamadul Muntaxa Mbàkke moom Sëriñ Basiiru xalifa général des mourides yeesalaatee ndigal ci ñoom programme bu am solo boobu ñu koy dooree ci guddi gi nga xam ne ci la ñuy séentu weer wi su weer feeñee noonu lañu fa yéene ànd ak yéen ci mbooleem naafile yi nga xam ne ñu ngi koy amal ci grande mosquée bu Touba. bés bu yàlla sàkk ñu koy diffuser en direct ngeen koy mën di am ci seen chaîne bi di MK Touba TV mbokk yi daayira Muxaddamatul Xidma fas yéene it ànd ak yéen ci njàngum fajar gi nga xam ne day am bés bu yàlla sàkk ci biir weeru koor gi ci grande mosquée bu Touba ñu ci ànd ak Serigne Ibrahima Gueye ak Serigne Abdoul Ahad Touré. noonu it lañ fas yéene ànd ak yéen ci tàkkusaan gune ci waxtaan yu am solo yi nga xam ne dañ koy baaxe ñu ci ànd ak boroomi xam-xam yu kawe lool. tànn ci ay thèmes yu am solo ñu koy waxtaane ci tàkkusaan gune ci grande mosquée bu Touba. daayira mu xadamatul xidma noonu la waajalee ndog yi nga xam ne noonu la ko daan defee at mu jot di ko baaxee mboolem jullit yi ren jii nag ñu jël ci ay matuwaay yu am solo ngir gën a yokk ni nga xam ne moom moo jëm ci bernde yu am solo yooyu nga xam ne moom la ñuy baaxee mboolem jullit yi mbokk yi daayira mu xadamatul xidma ñoo leen di ñaanal kooru jàmm